aju billahi min shaitan rahmaani rahim ñu ngi leen di ziyaare ñëpp di leen uh, nuyu di leen béggee bu wér man la seen mbokku sénégalais Mollah Morgun maa ñëw di waxtaan ak yéen ci ay kàddu yu gàtt rek balaa ma tàmbale waxtaan bi maa ngi ñaanal Cheikh Omar Diagne di ñaanal sookaana di ñaanalit e, kii di député boobu ñu naan e, e, Cheikh Bara Dolly yàlla génne leen fu ñu nekk yàlla rëccal leen yàlla musal leen te rëccal leen ci loxoy Macky sàll bi leen fa téye mu doon loo xam ne nag metti na lool ci xol lu day ni tey Omar Diagne buñ ko jàppee ba léegi rocci ko ci njabootam tàggalikook njabootam jël ko dugal sànni ko ci kaso bi depuis ci jamono weeru koor bi ñëpp a ngi woor boobu ba léegi ñi ngi ko téye ci kaso bi ci nag lii di diffamation muy lu metti ci xol ci képp koo xam ni épris de justice nga ki képp koo xam ni bëggoo injustice man de tere na ma nalaw en tant que sama mbokk jullit en tant que ki nga xam ni ci ñun la bokk ñu jël ko yenu ko sànni ko ci kaso bi ñu ngi koy mettit lu lool di ñaan yàlla nag moom mi dara tëwul moom mi mën mu rëccal ci kaso bi jëlee ci kaso bi Cheikh Oumar Diagne Sokana Cheikh Bara Dolly delloo leen seen njaboot ñu tabaskee ji fa euh, <clears throat> bu weesoo lool nag euh, sama gaay Euh, dëkk bi moom ñëpp xam nañ ni metti na lool te nag am na loo xam ne neexul ci xol di ko gis képp koo xam ni loolu metti na la yoon la nga taxaw di ko reyante ak di ko jaayante tey dëkk baa ngi day foo xam ni nit yi dañoo am problème mu xar nit yi di rey seen bopp tout le monde se bat pour avoir un mouton moment boobu njaboot gi ñoom ñi ngi ci ay caaxaan ñi ngi ci ay anniversaire ñi ngi ci ay jël ay milliards di ko yàq ci ay caaxaan njaboot gi caaxaan ñu ngi ci caaxaan gu metti nee na dañuy anniversaire yow totale insolence bu doy waar donc ñoom ñu ngi yore alalu askan wi di ci foo di ci def ay anniversaire def taabal yu day nii jël lu day ay millions def ci ay caaxaan ay foo ci ay ree ci ay kaf laa fi defoon live di leen ci wax bambulaa bu ñu nekkee alalu askan gu ñu yor di ko pasar pasare di wër àdduna di tukki di dem fu leen neex seen doom yi di añee New York di reeree Washington di ndekkee France di euh, njogonale Canada ñooñu ñoo yore suñu suuf yore yore suñu domaine national wax naa fi wax naa fi lu ma wax yëpp ña may wax ak tudd yëpp gis ngeen leen ñi nga ci biir anniversaire ba ña taaw teg ay table ña ngi ci def ay millions bambula bu doy waar moment boo xam ne suñu papa yi ak suñu yaay yi ñi ngi pene pour indi xar duñ fa teg du indi xar pour indi problème am problème mu xar am problème mu lekk am problème mu naan am problème mu faju doomu jàmbur yi ñu jàpp leen tëj leen ci kaso yi nit yi am ay problème di dee lii dey euh, moo am ci li ngeen di gis donc muy te ay lii de anniversaire la anniversaire anniversaire la anniversaire dong maanaam donc euh, tegal leen ko ngeen gis tegal leen ko ngeen gis

sénégalais yi yéen nga xam ni yéen la seen bàyyi di cotisé di fay impôt di fay tax di pour ñu am terrain fii ci Sénégal dinañ daj sa ak marwa dinañ daw sa ak marwa pour am terrain euh, pour nga gis jeune bu ci am terrain sax c'est tout un problème ñu ngi yore suñu domaine national di ko saax-saaxee di ci foo di ci bambula di ci anniversaire te ci def ay millions yu million ñun boobu ñu ngi am problème mu xar buñ takk waaye nag lépp sénégalais yi ñoo koy régler seen bopp ñun duñ def lu dul indi information jox leen bu weesoo loolu dafa am lu ma bëgg a leeral rek ci ay kàddu yu gàtt gis na euh, vidéo bu ma def jëmale ko ci kii nga xam ne mooy sama xalif général parce que man ab murit la ci juróom-ñaari maam di murit juddoo ci murit màgg ci murit bokk ci daara màggee ci daara màggee ci daara xam cotisation xam euh, maanaam sas xam bernde xam togg mbana xam ay xasida xam aal xam mbégte maanaam ab murit laa ci mu ci juddu ba ci juddu ba bu ma day ba day nii man nag ci bi dafa am lu ñu ma jàngal dañ ma jàngal dëggu loolu la mu Serigne Touba jàngal dëggu donte dañ lay rey man Serigne Touba jàngalu may kàcc jàngalu may fen jàngaluma ma saaga saaga ay xalif général te musul nekk sama liggéey musul nekk sama yoon gis nag ay doomu aadama yu génn di ma fenal di ma sosal di ma waxal li ma waxut dégg naa ci ñenn ñi sax nee nañ dama saaga te kenn ci ñoom a tegal fu ma saagaa lan mooy saaga xam ngeen saaga ñëpp ci yéen xam ngeen saaga léegi li ma wax noonu ban lan laa ci saaga na ma kenn génne benn moo bu ma saagaa ay doomu aadama yoo xam ne nawloowuma leen sax jàppuma ni sax ay murit lañ nag ay jàpp naa ne ay naaféq lañ ay seytaane lañ ay fenkat lañ ay rambaaj lañ jaxasoog yenn politiciens yi ñu ne yow xaaral ñu xool nuñ ko yàqee wala ma déet mun leen ma yàq de man taalibu Sëriñ mun leen ma yàq jegewu leen ma sax munu leen ma sax jege munu leen ma yëngal parce que gëm naa ne ay fenkat ngeen gëm naa ni ay naaféq ngeen ay manipulateur ngeen ay menteur manipulateur ngeen parce que ku taxaw ne Mollah Morgun dafa saaga xalif général bi te kenn mënu la indi fu ma saaga xalif général bi waxuma ci duul waxuma ci fecce waxuma ci merde waxuma ci nangamtaan mais ay ñu mun a fen nañ ñu mun a kàcc sax ñoo nekk ci Sénégal di dox di manipuler di di fen di fen te Serigne Touba jàngalul kenn loolu man pour man ab dëgg-dëgg murit waru taxaw di fen donte dañ koy faat waru taxaw di fen wala di sosalaate te dégg naa ko ci doomu aadama ñun yi taxaw man ñaw nawloowu ma leen di taxaw di wax ne kii day kii daa saaga xalif général bi <laughs> man ak saaga xalif général man xalif général di sama xalif général ma màgg ci mouridisme yaroo ci mouridisme ba day nii ba day nii lekk ci namp ci ci meewu mouridisme lekk ci ceebu mouridisme bokk ci ay daara di joxe sama addee di joxe sa màggal Tuubaa fu ma fekk ci àdduna may participer ci bi bis buy jóge sama koñ di dem bokk ci daara jooju nekk ci nekk ci jëwriñ ba ba mu jóge <laughs> man ba dëkk bi kaa yi bëri nañ caaxaana ah. dem leen bustan ca kaw Kaolack ngeen laajte ca daara ja man jëwriñ laa foon ñun ñoo sanc daara ji ak sëriñ Xaarim Mbàkke jóge ba Touba doomu sëriñ euh, Cheikh euh, Cheikh Anta Mbàkke ñun ñoo ko sanc ñun ne woon suñu morom ñu ànd ci ñoo sanc daara jooju ba daara jooju ay tout tànk ca daara jooju ñeneen ak ñeneen ay génération génération ñu ngi fa man bokk naa ci ñu ko sanc da ngeen maa ëppale ci yoonu murit gii da ngeen maa gën doon murit dangeen ma gën a sës ci murit man namp ci murit yaroo ci murit màggee ci murit Serigne Touba jaral ma lu ne may jaayante di rayante di joxe sama bakkan ndax yoonu xaadimal Moustapha bi ngeen di kàcc di fen di ma fenal ne damaa saaga man damaa bokk ci ñuy def ay live di saaga ay xalif général mus ngeen ma dégg ci loolu man mus ngeen ma dégg ci loolu nañu waxal dëgg rek man mus ngeen dégg Mollah Morgun buy dafiy live di saaga ay xalif général ñaatu groupe laa génn ñaata groupe laa génn yoo xam ne dama fekk ay nit di manqué respect xalif général ma génn ca ñaata dem leen laaj alphaba sama xarit dama leen laaj alphaba groupe musuma toog ci groupe boo xam ni gis naa fa benn rek ñu manqué respect yoon sama yoonu yoonu murit bii ma toog fa musul am je toujours le premier à sortir Alpha boole na ma ci kat groupes saa yu ma fa ñëwee gis benn ñuy am ku wax ci dara jëmale ko ci ci xalif général walla ci xoolal ci ci ci diine gi ma génn ñu woo ma ci suuf ne ma mais yow lu tax ngay bàyyi man leen ah man di li ci li ma nekk gëm ko la de man ab murit laa bu gëm euh, euh, tarixa donc boo leen amee lu ngeen wax ci tarixa rek da ngeen may laal ñaata yoon laa génn foofu dem leen laaj Alpha Ba ñaata yoon aw mu benn groupe bu ma nekk boo xam ne toog naa fa man maay saaga man man maay saaga man bay xa bay yëkkati kaddu di saaga xale yu général mais ñii ñoo mun a kàcc ñii ñoo mun a sosalaati te mun a fenn ñi ay nit lañ est-ce que est gëm nañ ni bésu bàmmeel am na guddi bàmmeel am na est-ce que gëm nañ ni dinañ jàkkaarloo nan la nit di mun a fenee bay sosalaat nit ne ko dafa saaga ma na kenn génne lu ma saaga génne lenn lu ma saaga mais boobu ba léegi nit yi ñu ngay sos di fan lu mel ni ay eh, leeral point net dem dagg ay affaire am ñëw teg mais ban saaga ngeen ci dégg ban saaga naa jaru sax témoigné Seydina Omar Dramé jaru sax témoigné man ku ma xam-xam ne ci yoonu murit laa juddoo fa laa màggee ci yoonu murit laa ne kam micro ya nekk ca daara ja ma ne micro bu nekk ca daara ja te ñu fay jàng xasa xasida yi man maa ko man maa ko jënd man baafal ya nekk ca daara ja daara ja laa la wax daara Serigne Touba ga nekk ca bustaan Kaolack man maa jënd baafal ya ba fan yi sax maa ñu ngi may ñu maa leen di wax naan maa ngi wut table table de mixage yi ngand yi parce que dañuy dañuy chaque chaque màggal dañuy organiser ay ay ay ay jàng daara yi dañuy dem foofu noonu ci kër Serigne ba toog fa di jàng may jéem lu ma def ba teg ay table table de mixage ña may fenoo di ma kàccal ne man damay saaga man dinaa saaga xalif général naa saaga xalif général man ma koy saaga quoi man ma koy saaga na kenn génne lu ma saaga xam nga nit yi dañoo mun a fen mun a sos man affaire boobu feebar la ci ñoom Mollah Morgun wax na loo xam ni kenn ñi ma ko wax fi lan <laughs> lu ma wax lu ma wax kan moo dégg ma wax lu ñaaw ci xale général bi ñu wax dañoo mën a fenn rek dañ nañ ñëw man maa leen défier nañ génn fenn fu ma saaka xale général bi et tout Mollah Morgun insulte xam leen lan mooy insulte insulte mooy saaga Mollah Morgun insulte man ak insulte man depuis bu may laaj fu ba suñ jonn yàllay tey Sénégal yëpp seetaan nañ mos nañ ma saaga xale général mos nañ dégg may attaqué sa sa man mii man xanaa dañ maa jaawale xanaa dañ maa jaawale man Mollah <laughs> Morgun buy def ay live toog naan ay xalifa général nangam <laughs> gars yi dañ maa jaawale fu bokkut de <laughs> yàlla leen yàlla yërëm waay yàlla leen yàlla jéggal musuma saaga xalif général ak bu mu mën a doon nag bu mu a doon musuma def live di di wax ci tarixa musuma def live di wax ci tarixa musuma def live tarixa musuma def live di saaga ay tarixa musuma def live di saaga ay xalif généro musuma ko def musuma ko def te bokkul ci sama directive bokkul ci ni may liggéeyee bokkul ci ni may def parce que dama faa bokk man damaa gëm tarixa damaa gëm ni nit yi waruñu saaga tarixa yi dama gëm ni ku saaga tarixa saaga nga parce que ci laa bokk gëm ko gëm ko gëm ko gëm donc ay nit nu mu metti metti nañ gëm yàlla di wax dëgg bañ a topp manipulation ak mensonge manipulation ak mensonge am na sax ku ma wax loolu benn kii ma mais yow est-ce ñi xam nañ say maam yow man leen non soxlawul may wax samay maam sax ci yoonu murit man sama bopp laa wax man parce que samay maam la ñuy def ci yoonu murit dañ ko def ci yoonu murit adduna bi yëpp dem ba Italie dem naa ba it man fu ma dem kër fu ma dem dëkk bu ma dem xam kër Serigne Touba bi ba ci bu ma demee Rome Roma dem laa Dispoli fa la kër Serigne Touba nekk foofu ñu ñu gars yi bu ma ñëwee Rome laa Dispoli rek laa ci xam saa yu ma chaque guddi àjjuma ma dem foofu am benn paa bu nekkoon foofu bu santoon taal bu ma woo ba ma ñëw mu ne ma yow est-ce que xam nga say maam lu ñu def ci kër Serigne Touba gi xam naa loolu moo tax nga bëgg foo dem rek dem dem ca kër Serigne Touba ma ne ko jot naa ci xam ci samay maam yenn yoo xam ni fekke naa ko ma gis ni ñu def ci kër Serigne boo demee ca. tàmba Tambacounda sama maam Serigne euh, Serigne doomu Serigne Touba moo doon déplacé wu chaque mois di ñëw di ko seet si ma màggee foofu caatu Serigne Touba màggee foofu di ko gis muy jóge ba Touba di ñëw ba tàmbaa di seet si samay maam. dee murit ba ne ca Tamba sama maam a fa doon joxe sama maam moo fa doon joxe bernde ba bu muy faatu sama maam bu jur sama baay moo doon boot Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké sama maam jur sama baay moo ko doon boot te loolu ña ma ngi ko xamee ci sëriñ Saliou Mbacké sang bi ba ma ànd ak sama benn tànta ñu dem foofu noonu di ko ziar mu toogloo ñu à côté pour ñu xaar ma xawoon découragé man ne waa mii yàgg na yàgg na ndakate boobu dafa bëggoon wéet ak ñun génn ay moom mu génn ay sër sër yu muy yu ñuy yu ñuy ay dra jox ñu ko ñu toog muy mu ñuy xamal ni yéen seen maam moo ma doon boot bu ma dawee tout tànk may dégg loolu ci nopp sama nopp Serigne Saliou Mbacké di ko wax mais comme nu ma ko waxee soxlawul may wax samay maam ca kër Serigne Touba lañ fa liggéey man laa wax man maa nekk di góorgóorlu di liggéey ci kër Serigne Touba te di ko xeeb te di ko xeeb nag fuñ ne daara ma ma taxaw fuñ ne xase xasida yi ma toog fuñ ne participation ma joxe sama addiya fu ñu ne euh, ma joxe sama sas chaque màggal ñu sasoo ma benn nag ak participation benn njaga njaay man man Mollah Morgun chaque màggal ñu sasoo ma benn nag ak benn njaga njaay ca daara ja te wax naa leen micro ya fa ne maa ko jënd baafal ya maa ko jënd merci Bakary je confirme tu as fait une partie de ta jeunesse à Tamba sa soxlawul ñuy wax c'est man ñuy fan laa bëgg ñu ñëw wax ba fan laa saaga xalif général bi ñaari vidéo laa ne gis naa ñaari vidéo ñaari vidéo laa gis ñu yónnee ma ko ñaari vidéo ma gis benn bi xalif bi di wax ak Ousmane Sonko ma def ci sama commentaire sans sans saaga sans saaga beneen bi sang xalif général bi kullu murit di sama xalif général man ma gis ko ci beneen video bi muy wax ne bu sëriñ bi taxawee kii taxaw kii taxaw fii la jëm ma commenté ko mais ba léegi saagawu ma ci benn saaga duul sax amu ci duul dama ko ñimee dañ ma cee yare lu tey ni xalif général man wax di saaga mais ñi ñoo a kàcc lan moo tax ñuy yàpp xalif général doomu aadama yi wax di wax bay sos naan damaa saaga xalif général lan moo tax ñuy yàpp xalif général bi ñoom bu ma ma leen jekkoon ñoom ñooy xam ba xam man maa aalu seen kaw wala ñooy aalu sama kaw parce que di fen bay fenal xalif général naan da koo saaga kan moo ma gis ma saaga xalif général bi na ma kenn wax rek kenn kenn wax ci ñoom nañ ñëw xam nga lii lii vidéo bi may def nii leeral point net yooyu maa da fokk yooyu noonu na ma yàlla jégal ci wax ji ñooñu noonu nañ duñ dagg lii duñ ko dagg de ay seytaane lañ ay manipulateur lañ taalkatu dëkk lañ duñ ñu baax amuñu taalibe nguur moo leen yëkkati lu ñu lekk ak lu ñu naan rek la ñuy wër gëmuñu sëriñ bi gëmu gëmuñu diine gi gëmuñu tarixa yi muy leeral point net jaxasekat yu bon a ngi noonu ay manipulateur ay menteur te kenn gisu leen ci ñoom ñu xoolal vidéo bi duñ ko dagg duñ ko dagg de duñ ko dem tegi de mukk ñoom dara intéressé wu leen lu dul manqué respect xalif général manqué respect suñu diine gi manke respect suñu aada yi manqué respect lépp ñoom Macky Sall rek moo leen yitteel booy wax dara ci Macky duñ ko dagg mukk ay wax la ñuy jël teg ko amplifier ko ki leeral moo def loolu te ñëpp xam nañ leeral ci seytaane ñëpp xam nañ leeral ci manipulation ñëpp xam nañ leeral ci kàcc mbirum aji saar yëpp ñoo ko taal leeral ñoo taal dëkk bi ñoo rey lu ñëpp mbirum aji saar li ci am lépp leeral la ba suñ jonn yàlla tey dañuy lënd ma rek di yàq rek di dem ndax luñ lekk ndax weccet buñ jëlee ci Macky Sall kon bu leeral demee ba dagg teg nga xam ne ñoom dañu leen di foowee <laughs> dañ leen di foowee rek de bu demee leeral ba bind xam nga tey bu ñu ko yóbboon ba justice internationale leeral bind Mollah Morgun insulte la xalif général ma porté ko plainte dans le monde entier dina génn fan laa saaga xalif général bi te je défie leeral mu génnal ma fan laa saagaa xalif général bi man fan fen ak kàcc taluma leen woon sax tontu parce que man dama gis nii amul fenn foo xam ne saaga naa xalif général ku saaga xalif général ma jaay sama bakkan man maa ko wax nëbbu ko de xalif général ku ko ak bu mu mun a doon ku ko saaga mu jaay sama bakkan dañoo mun a fenn bay wax Assane Diouf insulte la xalif général ban Assane Diouf moo insulte gis naa vidéo Assane Diouf man gisuma fu mu saaga xalif général bi merci Idi sa famille bi nga bokk cat ba cat ay murit lañ yu gëm tarixal lañu non ñoom xamuñu leeral moo leen di lëndëmal di leen dofloo di fan di aggrave ay situation di aggrave ay titre naan kii da koo saaga man man saaga xalif général man saaga xalif sama kanam nga xool ba xam du ma la jaay sama bakkan dama ne ñëwal saaga xalif général ba man du ma la jaay sama bakkan man xalif man dinaa toog ngay saaga xalif général man may dem bay saaga xaalis dara man mii man moo laa Morgan mii Mouhamadou Niass mii maa ngi ci murit yar ci murit namp ci weenu murit ba tey nii di reyante ngir muridisme di tox ci muridisme te mënuma ci te sama sama liggéey ab toq ndox la ñaa ay waxu xalif général bi laa tegaat amul leneen du sama sax wax waxu xalif général bi laa teg laa teg commenté ko point amul benn saaga créé wu ma yokku ma waxu xalif général bi laa teg commenté ko ah ma vision nu ma ko gisee mais ba léegi amul saaga dama ne xalif général bi gis naa ko mun naa ko répété am parce que saaga amu ci xalif général bi gis naa ko mu toog ak Ousmane Sonko di wax ak moom ci ñi rey ni yi nii nii di laajte est-ce que am na vidéo boobu boo xam ni wax waxee na ko noonu euh, le président de la république bi nga xam ni lii lépp moo ko indi loolu da laa wax <laughs> léegi foo ana saaga lii laa njëkk a wax kon donc c'est une question ay doomu aadama mun a ñëw ne non pourtant wax naa ak moom ci biir am na koo xam ne sax am na keneen ku def vidéo bi mais xale bi bu mu koy def c'était secret benn waaye moo jël vidéo bi nangam ak nangam expliquer man carrément calmement ma comprendre mais mais vidéo laa ni vidéo laa lii laa gis deuxième bi ma beneen vidéo buñ ma yónnee ma ne gis naa xale général point loolu laa wax de <laughs> mais man gis ma leneen loolu moo ma jaaxal man fenn yi ñuy wax ak man li li ma wax ak li ma wax tegu nii nii dindi dindi dindiwuma ko fenn mais bokkuñu sax hmm? li ma wax leer na nañi ay wax yu fi nekk la ñaari wax ma jël ko teg ko commenté ko lu ñu naan les faits sont sacrés les commentaires sont jeex na aw ma benn man cest à man bopp ba gis ngay taalibe may taalibe ma lay jéem a convaincre man jéem a convaincre taalibe nii kon ma suufe loolu de man taalibe yi nii nii dañuy rawante dañuy rawante ci yoonu xaadimal Moustapha gii la rawante man du ma suufeel sama bopp ba am taalibe du ma rendre compte benn taalibe man du ma rendre compte taalibe taalibe buy reewante ñëw di ma jaay reew dama lay bloqué effacé la man noonu laa mel parce que man ñàkkuma fayda ba war a di rendre compte ngay taalibe may taalibe te yow sax macha allah man daal li may wax mooy bu kenn jaawale kuy xeex na nga xeex mais bu kenn jaawale politik ak diine te man musuma def ay live du loolu sax du live bu may toog di wax ay xalif général live deux heures de temps la ma ciy wax politique politique laa ci doon wax la la ma jaar ci waxu xalif général bi ñaari vidéo mi matul sax deux minutes matul sax deux minutes politique laa doon wax ba romb foofu expliquer dem sama yoon ña tagg loolu mel damaa toog spécial comme nu gars yi di ko defee toog di wax ay xalif général bi lii xalif général bi laa non <laughs> man man man yooyu nekkuma ci te aw ma compte yu taalibe man pour man munu ma nekk di tay la sama cër ci yoonu murit gii bay wax ak benn taalibe comme man boo xam ne wóoru ko ni sax Serigne Touba nangul na ko yoonam ma koy am compte yu ma ko war a rendre wala mun a waaye boo defee nag ma koy tontu du ma tontu ba suñu na yàlla tey amul kenn ku lay indil benn commentaire ma tontu ko xamul ma def bloqué effacé ba bés yow mal xiyaam nga xool ba xam yow di ma gën a jege sëñ bi <laughs> loolu kese la ba bésub yow mal xiyaam nga won ma ba xam yow di nga toxaw fu sëñ bi nekk man musuma saaga xalif général bu mun a doon du tiijaan du layen du xaadir du murit du duma katu duma saaga katu xalif damaa am tarixa gëm tarixa bokk ci tarixa Sénégal yépp xam ni man man mii kat ab murit saadix laa saadix gëm ko ñi nga xam ni yàgg nañ maa gis may ànd ak ñoom tuubaa dem màggal di di di nekk ci niix ma yi di liggéey ñooñu ñëpp kenn mu kenn gisul loolu ñu ñu ko gis sax xolal ñoom muy Chaim Chaim Gaston ñii ñu ma lay wax ni ñoom mii allemand ñoo ñëpp dañoo ànd màggali lu ne def nañ ci ci yoon tuubaa googu noonu ci wala ci tuubaa ñooñu ñooñu bu ñu ma wooyee sax ci boppam lu wiki lu mu doon wax nee na benn waaye da doon werante ak moom naan ko mu naan ko non kii du murit wiki na ko kii de moo la gën a doon murit ba waa ji mer wiki jaamari na ko kii moo la gën a doon murit kii moo la gën a sës ci yoonu murit kii nii nga gis nii moo la gën a dee ci yoonu murit fuuf nee na waa ji mer ba ba ba di xëccoog moom naa ko doo bul ma wax loolu mu ne ko man xam naa kii xam naa la kii ni mu Mollah Morgun nii ni mu mel ci yoonu murit yow ñi moo koo mel lam ko jaral yow jaralu la ko mais dañoo mun a fen mun a fen mun a manipuler lépp dañ koy manipuler di kàcc duñu wax dëgg bay taxaw bay fen naan Mollah Morgun dafa saaga <laughs> léegi man maa ngi leen di woon nañ may di saaga bi nañ ma indi saaga bi hmm? sama gars duñ ma jàppale indil ma saaga bi man saaga bi laay xaar saaga bi rek laay xaar kàcc rek la ñuy def waaye ñun amuñu seen jot ndax loolu yënguluñu kàcc yooyu yënguluñu de fen yooyu yënguluñu de barki alxuraan barki xaadimal Moustapha dégg ne waxoon naa leen te loolu laa di waxaat dama ne bu asamaan si doon xotteeku suuf si di xar barki laa ilaha illallah barki xaadimal Moustapha ma tëdd fi yeewu jóg déglu samay xasaay defar sama café Touba. billaahi wallaahi billaahi dama ne bu asamaan si doon xotteeku suuf si bi xar ma xolal ma tëdd fii yeewu teg lii laay fa lii laa sax laa yeewoo moom sax laa leen tagal nag parce que naru woon sax laay dama dem man damay yeew di déglu samay sama sindi di laa yeewu di déglu damay déglu samay xasaayit ba nalaw yeewu eggali sama xasaayit dama doon deglu sama xasaayit rek toog aalu nii sax moo def ma def laay bi de mais man amul lu may rendre compte kenn du ma daw du ma reculer ma changer la ma mel laa mel man sama conscience sama conscience na tranquille sama conscience rek na tranquille man loolu la man moo la Morgun wutuma dara lijjantiwuma kenn man sama conscience na tranquille li ma wax boo doon fen ba suba ne wax naa lii te waxu ba loolu du tax ma changé du tax ma changé la ma gëm laa gëm nekk ci nekk ci donc fen baaxut fen baaxut sos baaxut dëgg rek moo baax nit noo ko bañ bañ bañ waxal ko dëgg noo ko bañ bañ bañ bu ko sosal ndax même dañuy fen ba fenal Assane Diouf Assane Diouf lu mu wax man dégguma ci saaga mais gars moo laa boor gën Assane Diouf insulte la xalifa général mais ñi mun nañ fen mun nañ fen ah te fen nday bokk na ci nday ñaaw téef yi bàyyi leen fen sëriñ bi jàngalewul fen sëriñ bi wanewul daf ne wax leen dëgg yàlla ne wax leen dëgg prophète bi ne wax leen dëgg donte dañ leen di rey fen baaxul sosolaate baaxul feebar ngeen feebar boo xam ne fen rek ngeen di dundee fen rek mënu leen xeex kenn ci ay fen kuy fen mënul xeex nit tey perte rek nit kuy fen du xeex nit mënul nekk fen bay sosalaate ñëpp seetaan nañ Assane Diouf ñëpp li Assane Diouf wax ñépp mun nañ ko répété du saaga amul benn saaga man bu ma benn xalif général génn di ma waxaat naan ma du ma bàyyi <laughs> loolu la wax de ñu Assane Diouf insulte ana saaga bi li ma lu mu wax nii waxaat naa ko répété naa ko fii de ana saaga bi <laughs> gars yi wax leen na saaga bi Assane Diouf insulte Assane Diouf man seetaan naa ko gis naa lépp man gis ma fa saaga lan moo tax nit yi di fen fen baaxul fen moo taal réew mi nit yi dañoo mën a fen Sénégal dañoo mën a ci kàcc rek la ñu dëkkee kàcc matin kàcc midi kàcc soir fen sosalaate yokku Assane Diouf di Assane Diouf taxaw ne moom dootul déglooti moom bu bu nekkee di xeex dootul déglooti benn xalif généraux wala benn xam nga loolu kese la loolu rek la war ne loolu man dégguma ci benn saaga ñu bind Assane Diouf insulte man gars yi ñoo mën a fenn waa pop pop gars yi ñoo mën a fen ñuy jël vidéo bi di ko dugal YouTube dañuy fen ña koy kii dañuy fen ña koy dagg di monté dañuy fen ña ña koy seetaan sax ñu leen di nax gis gis titre bi ñu dugg fa dañ dañ leen fen titre bu ñuy gis dugg ca dañ leen a fen tout le monde ment tout le monde kay nekk yore benn page am bëgg ñu seetaan ko day fen def titre buy fen pour nax ay nit ñu ñëw seetaan ko lépp pour am ay vues am ay like bëgg ngun nguñu nguñu ngan na ngan yépp ay fen ay waay bàyyi leen fen waay bàyyi leen fen te di wax dëgg bàyyi leen kàcc leeral moom du ma ko bërgël mais bàyyi leen kàcc fen baaxul dafa xaram moo gën a xaram li ngeen bëgg a xeex ku bàyyi fen yaa ngi ci yoonu dëgg fen rek fen pour am ay vues fen pour am ay like fen di fen rek di fen jëmale kañ jëmale ba xëy dee nii ba xëy dee saaga gi mu saaga ñi ko sax tudd ma <laughs> ah, mais léegi gars yi sama gars yi léegi léegi wax leen ma saaga bi man ma tudd ko ma malaa mbërgën saaga nag alif général bi saaga boo xam ni waaye ñaaw te bu ñaaw boo xam ne mun ñi ko sax tudd waa léegi <laughs> nañ ma wax léegi saaga bi ban la ma wax ko léegi fii na ma kenn wax saaga bi ma wax ko fii hmm? na ma kenn wax saaga bi ma wax ko fii mu jeex ñu avancé ban saaga la léegi mi question la posé de dama saaga na ma kenn wax saaga bi ban saaga la ma saaga waat ko fii mais ñi dañoo feebar non Fall damaa bëgg gars yi ñëw bàyyi Fall nga do mais nañ ma wax fen léegi nañ ma wax saaga bi ñi leen ne Mollah Morgun insulte la xalifa général nañ ma wax xeetu saaga bi ma saaga ma liir ko fii ban saaga la na kenn na kenn commenté saaga bi ma ma liir ko ma répété ko kon bu dee damaa saaga xalif bi na kenn bindal saaga bi ma saaga xalif bi insulte bi na ma kenn bindal fii ma ma ma ma jaaraat ci waaw ma yokk ma teg samay xasaay en attendant ma déglu kenn indil ma saaga bi ma saaga xalif général bi gis naa titre yi insulte insulte naka kenn génne ay ca na ma kenn génneel saaga bi kenn génne gu ma saaga bi de ah ok kon ñu avancé kon ñoom ñooy kàcckat yi ñoom ñooy fenkat yi parce que défier naa leen ne leen génne leen fu ma saagaa wala ngeen wax na ban xeetu saaga laa saaga xale bi kenn indiwu ko kenn may naa leen plus de cinq minutes kenn ci ñoom ku ci génn da ngay fen ku ci génn fu ma saagaa xale bi da ngay fen da ngay kàcc fenkat nga ci sa baay ak ci sa yaay fenkat nga ci fen nga màggee ku ko génne kàcc rek lañuy def kàcc fen sos te man yarewuñ ma loolu ci yoonu xaadimal Moustapha lañ ma yaree ci dëgg te ci dëgg laay dee dara du tax may may may fen man duma liveur buy def ay live di saaga ay xalif général man kuy xaar loolu <laughs> ci man Mollah Morgun bii boo yaboo nga tàyyi te ñibbi man dama respecté tarixa yi ñeseen yéeg tiijaan yi xaadir yi dama leen bëgg respecté leen fonk leen fonk leen laa la wax du ma ko jëndee dara de du ma ko jëndee dara bu bu Sénégalais yëpp bàyyi woon man damay deseeg tarixa yi nëbbuuma ko dama am fu ma dama bu Sénégalais yëpp woon ma kenn bañ ma bëgg kenn bañ ma faale man maa ngi ci tarixa yi te ñoom ñëpp laa bëgg murit xaadir laayen ñeseen damay dem fépp fépp laay dem fépp laay dem waaw te maa ngi ñaan ñii saaga xalif général yi ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko maa ngi ñaan ñii saaga xalif généraux yi ñu bàyyi ko bu ma amee li ma leen mën a ñaan maa ngi leen di ñaan ñu bàyyi saaga xalif généraux yi loolu maa leen ko ñaan ndax yelloowuñ ku leen di saaga yelloowuñ ku leen di saaga kenn bëggul ku saaga sa xal sa sa kilifa waxuma laa nag ay xalif généraux kenn yelloowul loolu kuy saaga bay saaga kilifa jàmbur maanaam bàyyi jàmbur ku saaga woon fii bàyyi jàmbur mu mer sa papa rek ku ko saaga woon mu mer waxuma laa ngay saaga ay xalif généraux ñi nga xam ne ñoo jiite ñépp loolu moom ñu ngi leen koy ñaan man nag bi mooy dernier premier sax et dernier bu may wax sax di wax ay waxu xalif généraux comme ni moo ko defee nii waaw bii mooy dernier bi parce que man du ma waxtaan man man dama dul man samay waxtaan sax ay politique laay wax ay sàcc alalu askan wi ay détourné dernier dernier public yi man la laay waxtaanee man Mollah Morgun boobu ba léegi li may développé lépp ay l'affaire Adji Sarr affaire affaire titre foncier affaire sàcc ay affaire guerre ay affaire rawale ay man man politique rek laay waxtaanee politique. te live boobu sax ñu génne loolu wax ca ne damaa saaga di kàcc sax politique laa doon wax am na nag ñuy def loolu fii dëgg la am na ñuy def loolu te bu ñu fàttalikoo bu ñu fàttalikoo rek bu ñu fàttalikoo xam nga yàgg yàggu fi man jàppante naa ak ñi nga xam ni ñoom ñëpp lan lañ jàppante ñi nga xam ne dañ leen di taxé ne dañuy saaga xalif généraux yi man ak ñoom ñëpp ku ci nekk jàppante na jàppante naa ak ñooñu. xanaa da ngeen ko fàtte lan laa jàppante woon ak ñoom sama gars yi maa leen euh, fàttali rek fàtte bu ndaw boo xam ne dangeen ko fàtte mais reveniraat leen moo laa mooy gën mii toog jàppante naa fi ak Akhenaton coow gi nga xam ni ñëpp xam nañ ko léegi dépassé nañ ko ci ay affaire xalif général la woon ci ay affaire tarixa la woon jàppante woon naa fi ak Moussa Moussa Camara léegi nag dépassé nañ loolu mais jàppante woon nañ fi lépp ci problème mu xalif généraux la ci affaire xalif général ci affaire tarixa amul kenn koo xam ni jàppante woon naa yow fii nii te ci mu leneen <laughs> déedéet Moussa Camara bañ fi jàppante bay xuloo bay ba mu def vidéo ñu bu mu su wënee ci affaire xalif généraux la woon ci affaire murit ma mer jàppante ceeg moom ba fii fiy tëkku nangam ñuy wax mais loolu lan la woon ci xarit affaire xarit rôle affaire tarixa la woon ba mu jàpp jot jàppante fii yooyu yëpp seen dans le passé bu ma jàppante ak anam ci ay affaire tarixa la woon donc ki doon dem jàppante woon ak ay nitam ay nitam démb ak bërki démb démb ak bërki démb ba yàlla def tey ñu juboo nekkaat ci jàmm démb ak bërki démb ñu ma jàppante woon yëpp ci ak mbirum waxu tarixa la <laughs> léegi gars yi ñëw bëgg ma jël léegi man féete la ma ci ñi saaga ay gars yi de dañuy reetoon loo ay nit quoi dañoo mën a fàtte de ah dañoo mën a fàtte de barke alxuraan gars yi ñoo gaaw a fàtte man mi hasbunallahu wa nihmal wakiil wala xawla wala xuwata illa billah la xawla wala xuwata illa man te damaa yeewu rek doon déglu samay naanaguma sax café naanaguma café Touba gi damaa yeewu rek di déglu samay xasaay aalu mën a xaaral ma waxtaan ak jaami jërëjëf sëñ Touba waay du ñu nit du ñu nit <laughs> gars yi waxuma naa fiq mais du ñu nit <laughs> ñi man bu may xeex bu may xeex ñi nga xam ne dañ doon wax ci xalif bi man may xeex ak ñoom bay ñoom ñoom xeexuñu <laughs> ku dem ba jàppanteeg say nit say nit ndax ay waxu xalif général ay xalif général ay tarixa man man xam loolu leer na jàppante naa fekk Moussa Camara ndax ci waxu xalif général ba tëkk fi ba yuuxu ba aalu ne ku fi waxati ci xal ku fi waxati ci suñu xalif ku ku fi waxati tarixa ba jàppante fekk Moussa ndeysaan ñu toog lu yàgg tuddantewuñ lépp ndax lan xalif tariqa ma jàppante fekk kii ak anetoon ndax dañ doon dégg ma koy dugal si samay laay ñu jàppante fi ba mu coow lu tàng jër ñu bàyyi dafa ay weer ndax lan ndax ay xalif ndax tariqa <laughs> léegi yenn dox yi bëgg a ñëw bu ma jël dugal ma comme benn gayen buy saaga ay tarixa di attaque ay tarixa attaque ay man man balaa maa dañaan suñu xalif généraux yi ma ne ko kon man dañ ma caa génne nii <laughs> yenn dof yi ah di kii suñu xalif généraux yi ma ne <laughs> kon moom xalif généraux la mais man xam naa duñ samay xalif généraux man <laughs> ndeysaan <laughs> man bu may dem ci front bi di xeex di xeex ak gars yi saaga xalif généraux boobu yéen yéen a ngi toog yéen a ngi toog def tekk def tekk <laughs> man maa ngi dem xeex samay nit samay xarit samay di leen bàyyi boobu man maa ngi defar xaalis ba ma diwee nii di sëñ xalif généraux yi sëñ dañ bàyyi sëñ xalif généraux damay toog di reetaan ne gis rek may wax ak sama gaale man la ah am na ñu may bëgg a génne ci yoonu xalif généraux bëgg maa génne ci murit gi de parce que nee nañ nee nañ suñu xalif généraux yi métti man bokkutuma ci kon den mujjee génne nii quoi den ñenn ñi laa ñenn ñi laa wax quoi fanatique yi ak dof yi. dangeen ma cee génne quoi kon man sëñ mun sëñ Muntaxa Basiiru Mbàkke moom du sama xalif général du sama sëriñ <laughs> sëriñ la man bokkuma ci quoi d' accord d' accord waaye si xale non religieux non religieux yi ñuy saaga man nag man ak saaga religieux man <laughs> man ak xale man man maay saaga des religieux man moo laa mër loolu ko koy xaar ci man doo ko am de <laughs> ñii dañoo dof waaye dañoo feebar barki Seydina Amady dañoo feebar non mais on passe à autre chose quoi jéggal naa leen ñoom ñëpp képp ku ne Mollah Morgun insulte la xalifa général jéggal naa la jéggal naa la baal naa la baal naa la waaw samay mbokk murit lañ rek waaw samay mbokk murit lañ. loolu amoon na fi mais loolu dépassé nañ ko nag ah. ak ak loolu amoon na fi li ma lay wax ni dama la bóonde dama lay rappeler rek ne jàppante woon naa fekk ñoom du amuñu benn divergence yëpp ci affaire ci ay affaire xalif la woon ci ay affaire tarixa woon damay divergence yi ma fi amoon ak ñoom ñoom ñëpp samay gaañ lañ mais dama am naafeek ñoom divergence ndax attaque yi attaque attaqué non xalif généro loolu laa moo tax ma jàppante woon fi flashback di leen rappeler di leen rappeler ne man bokkuma ci ñiy saaga ay xalif généro parce que man xuloo naa fekk sax ñi ñuy woowee ne dañuy saaga ay xalif généraux jàppante naa fekk ñoom histoire nañ fi am nañ fi ay coow man ak ñoom ba bàyyante fi ba bàyyante fi bolokante ku nekk dem sa yoon waaw c'est léegi nag man lu ma wax moom leer na man taluma yi tontu du ma tontu benn taalibe ndax benn taalibe ëppalewuma ci yoon bi wala benn compte bu may rendre benn taalibe taalibe ndax taalibe laa ni ñoom te man góob ma ni gën ne ëpp nañ ma wala gën nañ ma bëggu sëñ bi wala gën nañ ma jokk